dañuy bind parce que Sénégal tolloo duñ fu ñuy xoqatal ay nit ak di leen tere seen droit loolu kenn du ko nangu su fekkee ne lu jaar yoon la ñun duñu jàdd yoon waaye nag loo xam ne tegul yoon duñu ko faale duñ ko respecté moo tax bañu ñëwee alkaati yi taxaw naan duñu dugg ñaata ñaari oto yi topp cortège bi nit ñi dañ leen fël romb leen dem seen yoon te loolu mooy yoon